bismillahi irrahmani irrahim <clears throat> wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim wa radiya allahu tabaaraka wa taala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim xam naa jamono yi ñu toll kenn mënula tàmbali dara mbaa mu àggali ko te tuddul xew-xew yi yu doy waar yi wàcc ci xeet wi muy la xew fële ca Gaza Gazatul eh, Izza ak la ko wër ci ay dëkk ci biir Falastin xam nga Izzuddin bin Abdissalaam nee na ku wàcc ci suuf su fees dell mooy yàlla googu ñoo tuddee njaalo nee na nga ngay waxtaane bàkkaaru riba nee na xawma kan wante yow wuruj nga yàlla wuruj nga xeet wi maanaam war nga leen waaw li xew Gaza kenn mësul gis lu mel noonu sànq rek ñu ngi seetaan Wail eh, correspondant Al Jazeera représentant Al Jazeera bu jàmbaar boobu nga xam ne doo xam ban er lay nelaw mi ngi sur le terrain mi ngi ci hôpital yi mi ngi fu nekk di découvrir li xew xam naa dëgg ji moo wane neexul noonu yàlla yi di fa nga xam ne fa lañu wax ne ku fa dem kenn du la bombarde muy sud sud Gaza famille yam dem fa ak yeneen i famille yeneen famille wante pour fayu dëgg yi moo wax Israël noonu yàlla yi kër ga ñu nekk rey jabaram rey doomam bu góor rey jigéen rey sëtam am na ci membre famille yoo xam ne ba léegi gisaguñu leen te ni ko dalee noonu la dale famille yu bare bari ay quartier ñu écrasé leen daaya bu mag ba ca Turquie noonu la ñu def famille am fan yële am na keneen ku nekk Al di wax ne bi ko loolu dalee ci famille jabaram ak i mbokkam waaye bi moo dem toppatoo leen ña ca feebar ak ñëpp mu faj ga ca war ak liggéeyam amul benn minute buy wa paase lu dul bakkan dana rot te adduna bi ñi ñi ko jiite ñépp ànd ci kàccoor googu ko wax rek mu ne Israël am na droit défendre boppam waa défendre xam nga ki réeb nit jël ko dugal ko ci biir euh, toilette am sëggal ko ci ndox bi mel ni ku koy fat kooku di bañ violence boobu ak réeb gi bëmax la yow mi koy réeb nga ne am nga droit défendre sa bopp nga rey ko ki dugg sa kër fekk la fa yaag sa njawoot génnee la nga dem ca mbedd ma mu fekk la fa nga def mbaar ca mbedd ma mu ne la duma la may ndox mu dugg fi duma la may courant mu dugg fi te doo fi jógee te tàgguwuloo ma boo naree bañ mu fetal la nga yore say xeer mbaa nga bëmax ko mu alak la yàgg sa famille ne dafa défendre boppam lii mooy li xew Palestine parce que Israël amut ah Israël amut moo xam ba ko Napoléon bëgg a defar te sottiwut ba xalaat ba ñëwee ci njiiti Grande-Bretagne depuis 1840 ba ni ñuy force depuis la première ba muy catastrophe bu mag boobule bu bés yàlla tey bi ñu ngi leen di def lu ne te kenn du wax ndax xarb muy Occident ñoo jur bébé bi te danañ def lu ne pour mu màgg waaw kenn du ko lal moom daal dafa mel ni li ñoo tuddee faru jar su saaga sa ñu ne xam naa dafa am ku ko ci biti waaye taxut yàlla seetaan ndax àdduna bi ñi am conscience ñëpp ñu ngi taxaw gouvernement yi rek ñoo kàccoor waaye nit ñi ñoom xam nañ lu xew parce que démb téeméeri junne yi nit ñoo taxaw ci mbeddi Londres lu mel noonu am fu ne ci àdduna bi gis ngeen bi njiitu Nations Unies Antonio waxe li xew ci ay rey ci ay mbon yu Israël di def ci Palestine mu mel ni àdduna dafay bëgg a tukki Israël ni dafa war a démissionné ki wax dëgg moo war a tey ay nit ñu ngi leen di dàq ci seen compagnie ndax dañu wax ni li Israël ne du dëkk àdduna bu mel noon lañu lañu nekk waaw wax naa benn xasida ne aynu aynu al adalati inda al garbi awraaw waaw bëtu maandu bu fekkee ci kanamu Occident la nekk bët bu pëtt la waaw benn côté rek lay gis wa udnuhu an samaa'il xaq samaaw noppam it kàcc rek la mën a dégg waaye bu dee dégg dafa tëx amin wa yaakum bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala xam naa ñu continuer ci tuxfatul atfal tuxfatul atfal naa kado ndaw ñi la ko tuddee kado ndaw ñi ñu xool tuuti li ñu jàngoon ndax jàngoon nañu axkaamu nuun as-saakina wa mu waxoon ñu ne nuun saakina am na ñeenti atte noonu saakina ak tanwin am na ñeenti atte depending on letters yi nga xam ne ñoo topp ci ñoom atte bu njëkk bi mooy izhaar ak feeñal su fekkee ne xuruful xalq ñoo ca topp muy la mu wax woy wa hamzun fa haun thumma aynun xaau muhmalataani thumma gaynun xaau su fekkee ne nag xaraf ya ca topp benn la ci juróom-benn yi di yarmaluuna yaara miim laam waaw nuun dañ koy idgham dañuy idgham nuun wala tanwin ci xaraf woowee waxoon ñu ne nag idgham ñaari xaaj la idgham gu ànd ak gunna ak idgham gu àndul ak ak gunna mooy ñeenti xaraf yi su fekkee ne ñoo topp ci nun sakina wala tanwin yuminu yaa waaw mim nuun su dee laam ak raa la nag idgham total lay doon du am gunna ñetteelu atte moo doon al iqlaab mooy jàllar bi nuun sakina musaf miim ànd ak wala tanwin ñu jàllar bi ko musaf miim ga ànd ak gunna su fekkee ne dañoo jiitu xarafi baa ñeenteel ba mooy al ixfa ak nëbb nëbb mooy su fekkee ne nun saakina wala tanwin dafa jiitu benn ci fukki xaraf ak juróom yi des yi mu tudd ci bayt bim ne sif dha thana kam jaada shaxsun qad sama dum tayiban zid fi tuqan da zaalima xarafu njëkk ci baat bu nekk baat yi xarafu ixfa la dafay nun saakina mbaa tanwin su ji ko jiitu ànd ak xunna suñu bind bi weesu nag ñu jàngoon axkaamul miimi wan nuuni al hmm? atey miim gu am shadda ak nuun gu am shadda hmm? waxoon ñu ne wa miiman summa nuunan shuddida wa sammi kullan xarfa gunnatin bada nuun buñ ko shaddee wala nuun buñ ko shaddee lan lañ koy def tudd na ci ñaari mbir waaye benn mbir la rek mooy lañ koy def la wax nañ ko tuddee xarafi loolee Aja Njoba wala Fatima wala Fatou wala Neytu wala Yaasin miim buñ ko shaddee wala nuun lan mooy atteem lan lañ koy def d'après leçon biñ jàng dañ koy indi xunna mooy dañuy di yooyu wax ba bakkan da ngay nosal bakkan bi moo tax mm-hmm. miim ak nuun ñu leen di tuddee xarfu xunna harafin harafin nasal gannaaw ga ñu jàng axkaamul miim as saakina mu ne miim su fekkee ne dafa am sukkoon bu jiitoo benn ci xarafu ijji mooy arafi alphabet yi am na ñetti atte atte bu njëkk ba mooy ixfa atte bu ñaareel ba mooy idgham atte bu ñetteel ba mooy izhar xam na bu ñu jullee ngeen wax ma ñetti atte yooyu fan lañ leen di appliquer incha allah ñu soog a jàll ci bindu tey bi bismillahi taala xam na um, liñ doon li ñuy yuusul micro bi moo tax déggu leen uh, after isha hadis bi wante mooy yonentu sallallahu alayhi wasallam dañ ko wax ne ko ñaanal yàlla ñaanal yàlla yéeféer yi mu ne ah man ni yónni wuñ ma pour may saaga dañ ma yónni pour ma nekk mm. yërmande moo tax ma ne suñuy ñaan sax naan yàlla yàlla na nga teral lislaam ak jullit yi toroxal kéeféer ak mushrik yi sax ñaan bu ñara mata bàyyi setantal la ndax bu dee danga koy ñaan pour mushrik yëpp yaa ngi def musiba dafa am mushrik yooyu ñaan yàlla ak yoo ñaan yàlla ñaan yàlla mooy ñaan nit alako ñaanal yàlla mooy ñaanal nit baax maa lay ñaanal yàlla ak bokk bokk la maa ngi lay ñaan yàlla wolof bu ñaan maa lay ñaan yàlla mooy maa ngi lay maa ngi lay eh, am na nu ko wolof yi di waxee de maa ngi lay moolo móolu yonentu nag ne ko pour nit ñi ma ne nag dafa am yéeféer yu jaram móolu mooy yéeféer yu mel ni yu israel yi israel <laughs> musiba yi nga xam ne def nañ ko am na rek mbokk mu doon julli fii tey eh, ma leen ne eh, ñaan nag ëpp na xeeb ndax moom moom la ñu dese ànd ak nag di wax ak di manifeste waaw ah, leen waa ji am na mbokk mu toog fii mu ñëw maasum barke démb arrêté nañ ko ca New York te pourtant ñañ ko an ñañ ko arrêté landoo ay yahut lañu am na ca benn couple boo xam ne defe naa ñu ngi soog a sëy vingt trois ans xaw ma vingt quatre lañu am ñoo ñu nga xam ne ñoo tuddee seen bopp Jewish for peace or something like that ñoom dañoo génn ànd ak jullit yi di protester contre Israël mm-hmm. léegi nag ñoom dañoo doon def protest protest boo xam ne dañ ca boole civil disobedience mooy baare yoon wi ñu jàpp leen jàpp leen léegi nag bu fekkee yahut yi ñu ngi génn di protester pour ñun ah, ñun bu ñu déggee proteste bu am pour Palestine ñu tëdd di nelaw loolu amul tur loolu amul tur waaye ñuy ñaan nag ñaan de di ñaan di ñaan di ñaan ndax ñaan mën na lu ne Cheikh Ibrahima Niass moo daan wax ñaan bu mënee indi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñaan mën na lu ne ndax yonent dafa wax ne maay ñaanu maam Ibrahima gi waaw Ibrahima moo ñaanoon yàlla mu yónni yonantu ci Makka ñaan nga nangu ku toll ni yonantu bu ñaan mu ne xam nga yonantu mënoon yàlla mënoon ko yónni Makka Koulibantang yàlla bu neexoon mu yónni ko Tamba waaye ñaa Ibrahima ñaan mu yónni ko Makka waaw Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop laa dégg mu koy nettali suma ma juumut nee na booba dafa am dañu war a dem Makka te am na kenn kilifa ci kilifa yi jiite délégation bi ca Dakar feebar ba ñu ne bàyyi kook daal foog nañ ne du mën a dem léegi naa bàyyi ne Seydi Ali Cissé Seydi Ali wool nit ñi ajaleen nit ñi ngeen jàngal xoraan ñaan ñaan mën na lu ne waaye nee na ba ñu yegee Dakar waa ji moo teeru de waa ja feebaroon tëdd moo teeru ñaan mën na lu ne kon nag luy yëf yi niru lu jafe-jafe gannaaw yàlla moom yëf yëpp nañ ko ñaan nañ ko ñaan incha allah waaw <clears throat> waxoon nañ ne almim assaakina am na ñetti atte ate bu njëkk bi mooy nëbb ñaareel bi mooy idgham bu ñetteel bi mooy feeñal ci kanam ban xaraf lañuy nëbbee miim lañuy nëbbee miin miim ak nan lañ koy tuddee ba allah abba fal awalu l ixfaau qabla al baai wa sammi shafwiya lil qurraai wa man yactasim billah mu ne foofu dañuy nëbbu mim gi waaye nëbbu gi nag dafay ànd ak gunna wa man yactasim billah ñaareel bi mooy idgham ñaareelu atte miim as saakina mooy idgham kañ la ñuy idgaam al miim miim ni moom moo ci topp macha allah wa thaani idgaamun bi mithliha ata wa sammi idgaaman yaa fata ne tuddee ko nag idgaam bu ndaw walakum ma kasabtum amman yujibu al Mm-hmm. Mm-hmm. ñaareel loolu sax danañ ci danañ ci dikk saa yoo gisee ñaari xaraf yoo xam ne dañoo bokk ñoo dëppoo ci sifa dëppoo ci maxraj dañ leen di mën a idgaam dañ leen di idgaam niki bu doon ñaari bala bu doon ñaari dell idrib bi asaaka alxajar dinañ ñëw loolu ci darsu tay bi nu gën a yaatu incha allah mu ne ñetteel ba mooy izhaar kañ la ñuy feeñal mim assaakina hmm? fekkee hmm? beneen lettre bu dul ba ak miim masha allah for the linki when miim asakina comes before the rest of the letters wa thalithul izharu fi lbaqiya min ahrufin wa sammiha shafwiya dafa mel ni am na ku fi mu nekk bari buri xaw ma dafa nooyi xaw ma buri fa ne ya sax na yaasin yow la defe na sa kii bi dafa am buri tëjal sa micro bi ma xool nga mel ni bruit foofu lay dikkee ci yow lay bruit bi di ñëwee waa léegi dem na xaw ma ndax da nga yore écouteur wala wala da nga reer reer bu di sa noyyi gi di ok dem na waaw léegi dem na macha allah nee na waxdar waawin wafa an taxtafi li qurbiha wa littihaadin fa arifi nee na miim sakina nag su jiitoo waaw mbaa faa nanga moytu mu nëbbu lu tax ngay moytu mu nëbbu lu tax miim sakina su jiitoo waaw ñu lay wax ne moytu la nëbbu miim saakina bi ndax jege gim jege waaw bi bu jiitoo faa dañ ne la moytul mu nëbbu ndax jege gim jege faa gi lu tax. dama bëgg détail laa bëgg de faa am na àtte boppam waaw am na pàtte boppam. Hmm? ñoom ñaar dañoo ñooy ñan. Oh, waaw ak miim dañoo jege fu ñuy génne. ah. lettre dañoo jege wala dañoo bokk. dañoo bokk fu ñuy génne. dañoo bokk <laughs> ak miim dañoo bokk fu ñuy génne. faa ak miim dañoo jege fu ñuy génne loolu la wax li mu dellu ci faa wal mu dellu ci waaw waaw ak miim yëpp ñaari tuñ yee di wax moo tax ñu bennoo faa ak miim nag miim ñaari tuñ yee koy wax waaye faa suuf mee koy ak bañu kaw yi bu dee faa dañoo jege bu dee waaw dañoo bokk dañoo bennoo génn waay ñoo bokk maxraj miim ak waaw bu dee miim ak faa nag dañoo jege max rekk nga jege giñ jege nag mooy tax boo sukkanee miim gi boo moytuwul rek nga euh, nëbb ko ndax boo sukk ba bu sukkoon dafa woyof su fekkee da ngaa jógee ca la sukkoon jëm ca lañu ñu kas la maas te mook lañu maas ñu bokk génnuwaay wala lañu ñu ko tem nga ah, omit lañu sukkoon ndax sukkoon dafa woyof dafa neex omit te doo ko yëg rawatina bu sësee ci baat ci lettre boo xam ne dafa jegeek moom génnuwaay mbaa mu bokk ak moom génnuwaay alayhim wala wahum fiiha jàngoon nañ ne dafa am ci lettre yi lettre yi ñu tuddee lettre wat hmm? lettre lat xuruful musdalifa al muslafa xuruful islaaf lettre islaaf ñooy lettre yi nga xam ne ci cat la ñuy génnee lettre yi génnee ci chat nag soo loo bàyyiwul rek boole dañuy bëgg nga ci insister ndax dañoo neexa dégg nga tudd tudd bu bu bu bu jaaduwul dañoo neex a bañ a tudd mel ni faa af dañu bëgg nga insister ci te kon déjà miim mu ngi bokk ci lettre yooyu ba pare jege lettre bu mel noonu ba pare booba maas moo tax ci bàyyi loo xel <clears throat> lañ taxawoon

bu ñuy wax laamu al mi ñu bëgg a jàngal rek xuruf shamsiya ak xuruf qamariya rek la ñu bëgg a jàngal loolu mooy ci laamu al bu dee laamul fi'li nag leneen la dinañ ci dikk hmm? dama daan liir arab bi laaj Fatimatu mu liiral ma anglais bi waaye dama bëgg comme dama bëgg ñuy pratiquer suñu lecture dama bëgg ñu liiral ma laamu euh, baytu bu njëkk bi kan mooy volontaire liiral ma ko ci arab baytu bu njëkk bi Okay, I'll try. xaala xaala Mm-hmm. naana kii de li raatal lii ok li laami la laami al li laami al mm-hmm. mm-hmm. xaalaa xaalan xaalaani xaalaani oh, nii bi kii kii qablal uh, أخ أخروفي أخروف أخروفي طولا هما إذ إذ خاروا خافل تغريبي فالتعريفي very good very good very good lilaami alxaalaani qabla alaxrufi ulahuma idhaaruha faltacrifi mu mel ni boo liirul bayti ba ca topp maanaam mi du mët na keneen ku ma liiral bayti ba ca topp wala yaa njooba mu ko rek Abla Ablar. Mm-hmm. Yes. Ablar. Mm-hmm. Bari. Barin. Hein? Barin. Mm-hmm. Barin. Mm-hmm. Bar. Rosh. Roshra. Roshratin. Khud. Khud. Khud. Uh-huh. Okay. Khud. Ghil. Mm-hmm. Ghil. ilmahu waaw masque yi léeg-léeg yi dafay taq ak baat waaye baax na mhm. ilmahu mhm. Euh, minil mi euh, euh, Hamza baa ngi fa de Hamza baa ngi fa de Hamza baa ngi fa de Hamza ko boole min ibri mhm. xaj xajja xajjaka mm-hmm. wa xaf mm-hmm. wa xaf raqi mm-hmm. uh, uh, raqi raqimin raqimahu aqimahu qabla arbacin maca ashratin xud cilmahu min ibgi xajjaka wa xaf aqimahu very good very good Fatou Kiné translate Okay, the lam of al has two conditions when occurring before the letters of the alphabet. The first condition of which is adhar, Izhar, izhar. Izhar. Izhar. Before, before four Example 14. IE. No, no, IE. IE. E Not example. IE 14. E. Mm-hmm. Mm-hmm. Meaning, meaning that is. B. Mm, mm-hmm. IE, huh? money e represent that is, meaning that 4 with 10, that is 14, IE 14. Mm-hmm. Mm-hmm. Right. Mm-hmm. desirous of your pilgrimage and fear that it becomes barren. <laughs> macha allah leer na de wala leerut. Eh? eh before four with ten maanaam uh, maanaam li laami al bàyyi ma firi wolof bi ndax danañu dimbale tamit mm-hmm. lilaami al ñeel na laami al maanaam laami al laam gi ci al hmm? am na xaalaani ñaari xaal ñaari situation ñaari condition ban laamu al ngay wax mu ne qabla al ahrufi laamu al bi ci bi jiitu xaraf laa wax nag maanaam laamu al bi warul bokk ci baati xaraf yi maanaam de definite al laamam boobu am na ñaari xaal ulaahuma xaal bu njëkk bi izhaaruha mooy feeñal ko fal taarif nanga na xam loolu feeñal lan lan ngay feeñal laam bi wala xaraf yi mu jiitu hmm? xaraf yi mu jiitu hmm. laam bi thank you thank you thank you laam lañuy feeñal ah laam bi moo am ñaari condition ñoo am ñaari situation kañ la koy am bu nekkee ci kanam arafi yi yan situation la laam bi am situation wu feeñal feeñal ko moom laam bi maanaam laam bi am na xaraf yoo xam ne su leen jiitoo danga koy jàng mu feeñ am na xaraf yoo xam ne su leen jiitoo doo jàng laam bi mu feeñ danga koy idgaam ci xaraf yooyu bala mu ñëw ci ñaareel bi nag mu wax la ne xaraf yi nga xam ne suleen leen jiitoo lam bi dafay feeñ danga koy jàng mu leer nañ ñi fukki xaraf lañ ak ñeent nga ne ko yan mooy xaraf yooyu mu ne jàngal jumla ji jumla jan mooy ibri sàkkul xajjaka sa xaj waxaf ta nga ragal aqimahu jëll mbiram wala mbir mooy to become barren jigéen bu amul doom dañ koy tuddee aqim mooy moom la salum saalum di wax jaasir di dafa jaasir mooy mënta am doom yal na yàlla jigéen ñëpp doom hmm? maanaam lan la bëgg a wax mooy utlub xajjan la rafatha fiihi wala fusuq wala jidaale yow mi aj nanga wut aj goo xam ne caaxaan nekkut ca ak kàccoor nekkut ca ak werante nekkut ca yàlla rekk ca nekk topp yàlla rekk ca nekk nee na baat boobu maanaam euh, sentence boobu moo dajale xuruful idhaar yépp when it comes to xaraf ñoo nekk fi غين حاء جيم كاف خاء فاء عين قاف yaa miim ha fukki xaraf yi ak ñeent fooleen fekk ñu topp ci laamu al laamu al ba kenn du ko lekk dafay feeñ laamu al ba dafay feeñ ñoom dañuy feeñal laamu al mooy dañ koy bàyyi ca xaalam na meloon Hmm? leer na de par exemple laamu al bu jiitoo Hamza fan ngeen ko fan ji mën a jox exemple al bu jiitoo Hamza minal ibili minal ibili macha allah macha allah al ibl masha allah very good example wala al ayat al ayat ah la in shakartum la in shakartum huh? no it's not you didn't, you didn't get it then we're talking about we're talking about al laam laam boo xam ne al comme alhamdulillahi rabbil alamin al bii mm. the definite al al bii boo ko indee ci arab ah arab dafa am definite and indefinite ni ko anglais amee al bii mooy firi the léegi al bii di firi the baat bu lettre bi topp ci moom su fekkee hamza la pare danga koy jàng al ayat wala al ibl bi soxna Fatimatu wax léegi waaye laam bi nga wax yow dafa du laamu àll laam boobu laamu laam la rek ci lettre bi bokk wax naa la ne la laam bi warul bokk ci wóot bi ok laam bi it serves definite to to for for hamd gi firi sant yàlla hamd the word is hamd boo hamdun mooy ak cant boo ne alhamd mooy the cant a mooy gi mboolem xeeti cant wala nga par exemple boo ne kalimatun oh, is doing this to me kalimatun a word lay firi xaaral magal li kalimatun a lay firi boo al al kalimatu muy firi the word seetlu nga al bi service the mm-hmm. moom la ñuy jàng al boobu keñ nga koy jàng laam bi ak kañ ngay lekk laam bi fukk there are letters yoo xam ne bu leen laam bi jiitoo laam is you know pronounced it's it's clear moom lañ tuddee izhaar laam bi dafay feeñ xaraf bi daf koy bàyyi mu feeñ bu ci njëkk nag mooy hamza exemple bi mooy al ayat wala al ibl wala al ard hmm? ibl mooy gëlëm yi al ibl mooy ibl ay gëlëm al ibl mooy gëlëm yi ard mooy ak suuf aw al ard mooy suuf si hmm? ayat ay aaya al ayat aaye yi lam bi loolu lay firi hmm? mu mel ni wala al imraatu wala waaye foofu du fi ñëw al imraatu kenn du ko wax mën nañoo imraatun waaye boo naan al imraatu alif ba dafay dem ba nga al maraatu ndax dafa diis hmm? Hmm? wala unsa unsa ji jigéen unsa sorry unsa jigéen hmm? boo al unsa mooy jigéen gi hmm? selu nga al dafa war feeñ waaw al bu fekkee ne al la bi ci al bi dafay feeñ su fekkee ne Hamza moo ci topp mooy Hamza is the first letter of the fourteen letters of izhar su fekkee ne baa moo ci topp dafa war a feeñ kan moo may jox exemple baa baa hmm. kenn du al boo rek mënutoo wax bun ok albaabu ngay nga Fatou Kiné xam nga mm, albaabu xam nga boo nee baabun xam nga ay buntu hmm, mu ko <laughs> ay door <laughs> masha Allah I like the the the English <laughs> ok baabun xam nga gis nga de de de un sound in baabun mooy firi e ok mhm. so e léegi e ak the xam nga mënuñoo ànd hmm? mën ngaa wax boo ne boo a e door it's it's indefinite kenn xamul boo ne the door mënoo wax the a e door mën nga wax loolu in English can you say the a e door you can't right so kay the uh, uh, in english mooy mooy the tanwin sound bi ngay am ci singular letter bi the nunation bi ngay am at the the bi ngay am when you say bun boo nee bun nga am tanwin rek mooy firi a uh, door soo bëggee wax the door da yokk al nga dindi the un sound yes oh. parce que mënuloo wax de e doo moo tax saa yoo gisee al rek mënul jeexee ci un al mënta ànd ak tanwin e, foo fekk baat bu tàmbalee al du jeexee ci nun sound un sound ok mm? ok yaa ngi dégg de yes hmm. so al baabu ngay albaabu masha Allah ak who can give me another another word another example albaqara albaqara masha Allah huh? one of the Allah's names huh? <laughs> eh? albayina uh, yes that's the Quran name that's the surah name too albayina very good I wanted al I want I meant albarru wala albasir Mm? Yes, no, quran is not. Al-Quran is is coming. We're talking ah, du turu Yàlla. Yes, that's why I say ku mu mën a jox benn turu Yàlla Al-Barru wala Al-Basir. Ah. As-Sami'u ah. Al-Basir quran la tamit Rahim. Mm-hmm. Eh, in suratu Tur. Uh, ok ok rapidement pour ñu bañ a spend a lot of time ok ghayn exemple ghayn turu yàlla am na beneen tur bu ngeen mën a joxit baax na ah alghaniyu yes macha allah alghafur macha allah xaa alxayu alxayu waaw very good alxalim tu baax na jiim jinnu jinni aljinnu aljinnu wala aljinni wala tur yàlla aljalil macha allah kaaf loolu it's uh, aljinni ak aljinnu alji aljinni boo ko nekkee rek mooy am na préposition wala mu nekk mudaaf ilayhi ah jàngoon nga ko ci xuruful jar bu fekkee xarful jar daf ko jiitu minal oh. jinni Hmm, xam nga booba xarfu jar daf ko jiitu hmm, nafarum minal jinni hmm. bu dee nag al jinnu mubtada la ah, al jadid very ok kaaf al kaaf macha allah tur yàlla ah waxaat ko oh, yes no no you said it you said it you were good tur bi nga wax sànq Karim yes tur yàlla la Alkarim Alkarim Alkarim very good ok waaw Wadud Alwadud masha Allah ak Alwaris ah kokan la ah lompat naa la ko waxoon <laughs> man kon ko <laughs> masha <laughs> mu ngi ni waxaf xaa maanaam bu fekkee al yes xaa al bu fekkee ne xaa moo ci topp lam dafay feeñ alxayr turu yàlla turu yàlla alxabir alxabir macha allah macha allah faa faa waxaf faa alfatiha alfatiha macha allah turu yàlla bu jege alfatiha mm-hmm. alfatx waaye tur yàlla bu jege al gën a jege sax alfatx sax la gën a jege mm-hmm. alfatx la gën a jege mm-hmm. gaa wut xaalis sax dañ koy wér de léeg-léeg <laughs> alfattaax macha allah yow da nga wut xaalis ما شاء الله ok ayin ayin turu yàlla de préférence wala turu bu la neex ah al alim mhm. yow da nga am xam-xam incha allah qaaf qaaf mhm. qaaf yes al qaari'a moo baax qaaf baaxul <laughs> qaaf xaraf la rek we need we need a word we need a word yes alqahar masha allah ak alqadir alqahir very good masha allah okay ya aqimahu ya we have three more letters ya ya baat bu tuddee ya yes bu baat bu tàmbalee yaa rek après yowmal xiyaam al ah am al waaye am nga yow al mën nga wax al yowma akmaltu lakum diinakum yes yowma is good you say al yowma parce que boo ne maanaam baat bu daafee dootul amati al parce que daaf bi moo tax léegi nag boo ne bu amee al dootul mën a daaf moo tax mën nga wax al yowma akmaltu lakum diinakum al yowma yes baax na uh-huh. miim almaliku wala almaliku wala baax na almaani almaaniu yes tur yàlla la yes almuminu almuhayminu baax na macha allah the last and not the list ha ah yéen ñi jàng salaatul war ngeen ko xam bu set alhaa ah ha ah waxaat ko nothing yes nothing you should say nothing yes <laughs> ah alhaadi of course it's a ha I'm saying it is not a ha kabir. ak ha saxir loolu question de xàmmee rek benn lañ ñoom ha ha rek ha kabir mooy ha gu mag ha saxir mooy ha gu ndaw. Hmm? benn alxayu. déedéet yaa ngi mu ngi fii ci xaj xaa ah. mën nga ko ci xa al al alxayu fii la fii ñu ngi ci xaa bu mujj bi alhaadi baax na hmm? alhaadi that's good masha allah ok now loolu mooy the first one wax na ne laamu al ñaari xaal la am xaal bu njëkk bi mooy izhaar Hmm? Okay. Why you doing this to me? okay xaalu ñaareel bi ñu dem okay um, Yasin is Yasin here Yasin dafa mel dafa nelaw de <laughs> mu ngi why you not participating ah dama nekkoon di lire eh, eh, traduction bi en anglais nii bu pare. Mm-hmm. dag ñuy xalaatal waaye waale nee na bu ñu xalaatal yemal fi ñu yem rek <laughs> ok so ok bàyyil ma jox ko Fatima Ibrahim read the Arabic part here ثانيهما إدغامها في أربع وأشرت أيضا waramzaha wa waramzaha fa'i continue tib summa sil mm-hmm. rahiman mm-hmm. bindul rahiman de ruhman la bind ruhman mm-hmm. tapus difa za za ne am dif dif za ne am su'a zal zur mm-hmm. sharifan da suu a zannin del ko bam jeex ndax woy bi boo ko ni niñ ko bindee woy bi dafay dammo même su fekkee ne xam mm-hmm. jàngagu leen ati woy waaw da suu a zannin zur sharifan mm-hmm. lil karam lil karam dafa dafa sukkoon bi waaw fii nag rahman la def waaye rahman xam naa ne moo gën a baax rahman Mhm, where is the translator wala Yacine Ndiaye comme yaa ngi doon lire da nga bëgg translate <laughs> okay try the second of the two conditions is idgham mm, idgham forget about his idgham mi ngi nii idgham mhm. idgham mhm. in four and ten mm. 14 has well. Mm-hmm. So grasps and memorize its combination. Mm-hmm. Okay, Fatou Fatou um, second. line. Be good mm-hmm, and mm-hmm. join. family. ties. Be, family ties, and you'll be prosperous, and be hospitable to na tàkk nee na daal lim la wax ni mooy fukki mooy fukki leetar ñeent yi ci des. he is very good cest à bu lay jàngal sax dafa lay jàngalaale ay ay jikko yu baax. xam nga fukki lettre ak ñeent yële mu wax la ne la lam bi dafay feeñ mi ngi la ko tënkal ci sàkkul aj gu baax te moytu aj gu bon maanaam booy aj na fexe ba aj gi baax lépp lu ko yàq nga moytu ko ibri xajjaka wa aqimahu fii nag mu ne la thani hima ñaareelu condition ñaareelu xaalu laam laamu al idgaamuhaa mooy nga seyal laam nga ca xaraf wa ca topp xaraf yo nga wa nag tax ñu war a seeyal laam nga fii arbain wa ashratin mhm. did you say something fii arbain nekk na ci ñeent wa ashratin ak fukk aydan ba tey maanaam quatorze leetar yi nga xam ne bu ñu jiitoo laamu al dañ leen di feeñal yim la waxoon lu tollook ñoom ci lim mooy quatorze yi nga xam ne ñoo des ci alfabe bi quatorze yooyu bu ñu jiitoo laamu al laamu al gi duñ ko feeñal dañ koy seeyal mu ne fa waram zaha fa'i junjëm wala combinaison am fa'i ko mokkal nga ne ko lan mooy combinaison am wala lan mooy junjëm mu ne la jàngal bayti bi bi topp ci li tib yaa ngi kii de am na kii de am na kuy kii na ku microm di di kii de faatu kii ne defe naa yow la yaa tib baaxal dégg nga tib baaxal thumma sil thumma gannaaw ga sil jokkal raxman sak bokk da jokk bokk boo defee lii boo baaxe jokk bokk tafus da nga texe dif ganaleel dha niam boroom xéewal da bàyyil suu a nin njort bu ñaaw bàyyil ñaaw njort zur ziyaaral sharifan ku baax lil karam ngir teranga dégg nga de nee baat yi ma wax la ñoo boole fukki leetar ak ñeent yi des waaye baat yi ëpp nañ fukki leetar ak ñeent mbokk yi wala bopp ëpp ko ah kon nag solution bi fu parce que fukki lettre ak ñeent rek lañ soxla te baat yii ñoom ëpp nañ fukki lettre ak ñeent am na ci yoo bokk ci um, ci uh, arbata jeex na kon nag lan mooy solution bi te lim la wax déedéet loolu solution bi de kon duñu compter yooyu loolu du solution bi solution bi gën naa yombu loolu hmm? Hmm? seetlu nga ko ndax boo dindee yooyu tamit am na ci yoo xam ne daf leen a répété gis nga raa ana raa raa mi ngi nii am déet raa mi ngi nii am déet raa mi ngi nii am déet mi ngi nii am mhm. kon lan moo tax lan la bëgg wax léegi dañuy compter tib muy un thumma muy deux sil muy ñett ruxman wala raxman ñeent tafus juróom dif juróom benn dhaa juróom ñaar niam juróom ñett da juróom ñeent suua fukk ah wala zannin zannin muy ñaata fukk ak zur fukk ak ñaar sharifan fukk ak lil karam fukk ak dégg nga ñeent leer na xanaa léegi wala leerut <laughs> léegi leer na loo xama num leere yow kan moo ne leer na nañ ñi ki leer dafa tigi ne non non non waxuma ko moo ko wax. <laughs> déedéet ki ko wax ki ko wax moo ne ki mooy ki la tuumaal xam naa parce que parce que mënul ko leeral mënut a leeral ñu leeral. <laughs> nan la leere mbokk yi nan la leeree leer na nañ d'accord na waaye nu mu leeree mhm. c'est-à-dire lim la bëgg a wax rek mooy fukki baat yi ak ñeent leetar ba ca njëkk rek ngay jël. baat bu nekk lettre ba ci njëkk. Ah, hmm? baat bu nekk rek lettre ba ci njëkk. Hmm. mooy. to léegi boo amee la boo amee al bi foo to looy wax. ak to laamu al bi dooko ko doo ko jàng da ngay idgham bi ci to bi. Mm-hmm. Hmm? ni ki su suratu taariq wa taariq n'est-ce pas mhm. hmm? Hmm, hmm? baaxal thumma topp ga gannaaw ga thumma li taraxi thumma topp gannaaw ga then nga then then thumma then léegi baat bu al bu ñëwee before saa al bi lam bi dafay feeñ wala du feeñ day ah, dafay nëbbu lan mooy ci ban baat ngeen mën a am comme exemple ci alquran asalaam déedéet saa laa wax waxuma siin asalaam dina ñëw Uh ah. huh. I don't know if ah, mm-hmm. like when the brains work. Mashallah. Mashallah. Maybe Sulatha. Huh? Sulatha. Sulatha. Mm-hmm. dee am nga am nga boo doon kii boo doon fekkoon ne mais Sulatha. Sulatha rek la da nga boo waaye as nga ne athalaatha waaye fii dama bëgg baat par exemple a athawaab mm-hmm. bi firi yoolub yàlla hmm? non non tha la ñu wax waxuñu siin de we are talking about this letter tha li ngay wax dina ñëw as sunna dina ñëw we are we go by order tib ta rek soxla ok thumma ya as sunna uh, siin la yeah you right xëy dafay am as sunna siin la we need tha hmm? tha athawaab soad bi moom ñëpp xam nañ ko sil jokkal bokk soad baat bu tàmbalee ah ah as sabr as sala as sawm mm-hmm. al boobu laam bi doo ko jàng laam bi dañ koy idgham ci kii maanaam laam bi dafay soppeeku shadda as léegi al sawmu la woon léegi nag laam bi dafay dee ñu soppi ko shadda mel ni da ne as sawmu mooy idgham as danga koy share mm. mm-hmm. waaw uh-huh. tib sil rahman ra arrahman arrahman macha allah ak arrahim arrahman arrahim macha allah macha allah tafuz danga texe tafuz ta attakathur attakathur macha allah at-tawba macha allah. tartiil. at-tartiil eh, waaye warattilil qur'aana tartiilan fi at-tartiil waaye yes boo fa toppoon at al tamit noonu lay mel at-tartiil. Hmm? yes. dif dood non non non no no du'a daal boo tokki ba daad yes ad dayf nga ma indil waaye man bëgg naa baat ci alquran de parce que dayf dayf yi may gis ci alquran amuñu alif ak laam non non oh yes duha yes wa duha yes you're right wa duha ak wala ah wala wala daalin ma sha allah dha dha borom dha mooy borom boroom nangam danañu wax za wala zu wala zi ça dépend ci position bu baat bi xam na ne wi gën a bu ñu yes wazariyaat ak wazakirina allaha kathiran wazakiraat azzakirin hmm? zalzala eh, déedéet zalzala ñëwagul dana ñëw oh. zalzala za zaay la du zaal Hmm. Ni'am, noon. Al-an'am. No. Oh, an'am is I, uh, Hamza. Hamza. Mhm. An-nahmadu. Huh? An-nur. An-nur, yes. Yeah. Yes, aqul a'udhu bi rabbin. No. Nas, an-nas. Yes, an-nas. An-nahl. An-nahl, yes. macha allah macha allah da bàyyil niam mooy firi nicmatu mooy firi benn xéwal niam mooy xéwal yu bari dafa am ci baat yoo xam ne mbooloo boo ko defee mbooloo mooy gën a tuuti xaraf boo ko defee kenn am nga nicmatu niam ah sorry niam waaye waaye bindul bindal waaye nicmatu nicmatu ah, ah. nangul bind de nicmatu nangul bind nicmatu affaire bi dafa am problème ah, ok anyway c'est bon nicmatu nuun ayn miim ta marbuta la mooy benn xéwal soo ne niam nag mooy ay xéwal gis nga singulier bi moo ëpp pluriel dafa am ci arab dafa am ci arab baat yoo xam ne mu ngi mel ni ar ah, rasul mooy benn yonant rusul ra siin laam boo daggee waaw gi muy ay yonant tilka rusulu hmm? da bàyyil su a zannin ñaaw njot da bàyyil daal ad dalil ad fu nekk ci alquran kuja Quran. Yes, mashallah. Yes, you're good. It it it works, but I want a Quranic word, please. Fatiha, jàng leen suratul Fatiha. wala doole. no doot la. Hmm. jàngal Fatiha rek. Ar-Rahmaan Ar-Rahiim li ci topp. diin mu nga ñaaw suu mooy lu bon suu bon mooy njortu lu bon suu a suura yes as-suura yes why I wanna have like a word que suura ñaareel ñaareel ci alquran suura doo fi gis doo gis moom alif للسمع للسمع yes faman yastami il aana yajid lahu shihaban rasada dafa mel ni yaa ngi jàng suratul jinni yow de jinni <laughs> ak assaaixuun assaaixuun ci suratu tawba attaa'ibuun attaa'ibuun al'aabiduun alxaamiduun assaaixuun noonu assaalihaat loolu sood la loolu sood la jàng nañ sood moo doon fii loolu saad la siin ok naaw su azon azo azo azo az az baat boo xam ne bari na ci fu mu koy waxee mu ngoog tooñkat yi mu ngoog naaw za mhm. azalzala yes ida zulzilatil ardu zalzala waaye baat uh, saar wi moo tudd azalzala yes waaye doo gis nag azalzala ci biir alxuraan zal ah zal du zal du zal za zakariya doo ko fekk mu am alif ak lam mhm. az zakariya amut zakariya tur la yes try to have a name for me or, word in the Quran it's very helpful mm-hmm. but uh, Fatima you, found it at least you gave an example we appreciate it but I'm looking for Quranic word if you have one zalimin hmm? no no zalimin wax nañ ko za ñu ci wala zaay mën nga ko tuddee ñaari zaun wala zaayun mhm. eh, allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishka ah aha kon waaw kay boobu hmm. laa soxla <laughs> azzujaajatu ka annaha kawkabun durriyun ca allahu nuuru samawati mu ngoog aha sharifan mooy ku tedd sharif mu ngoog wa shucaraau yatbacuhum algaawun wala yattabicuhum ñaari baax hmm? ci suratu ah, shucara am na am na tamit ki gën a bon ci li yàlla bind num tudd ñu koy woowee ashaytaan very good ashaytaan very good we have one more ashams ashams very good washamsi wa duhaha washamsi mm-hmm. wa jàppal Shams boobu sax nag ndax dana bayt bii di ñëw dana ci am dana am am na solo lool Shams baatu Shams boobu nga wax am na solo lool te mm-hmm. dina feeñ ci bayt bii di ñëw pour wax kanay kan ki nu kii moo tudd Faatu kii tudd Kumba Kumba mooy Shams Faatu mooy Qamar mm-hmm. ak uh-huh. laam laam moo moo lil karam laam alleyl alleyl mu ngoog walleyli walleyli ida yaxsha laam bu fekkee ne dafa topp ci laam bu ñu sukkoon laamu al su laamu al bi dañ koy idgham ci laam boobu ni ki walleyli walleyli yaxsha hmm, moo tax mu ne la nag mu ne la nag loolu pour mu yomb wallaamu luulaa doo wax wallaamul uulaa de ndax wéy wi day damm luulaa na nga koy jànge ni ko ñooñ warsi di jànge wallaamu luulaa sammiha qamriya bul wax qamariya ndax wéy wi day damm qamariya la ñu war a wax waaye wéy wi du ko attan boo ne qamariya rek wéy wi damm na ndax boo ne qamariya dafay nekk mutafail qamari mutafa boo ne qamriya nag mooy mutfail wala mustafil walaamu luula sammiha qamriya walaama luxra sammiha shamsiya shams and the first lam call it lunar and the last lam call it solar hmm? yaa ngi dégg de. maanaam laam bi nga laamu laam ñaari laam la fi jàng léegi de loolu nga doon jàng léegi booba léegi de. laam gi ngay feeña laam. laam izhaar laam al muzhar mooy laam gi ñu feeñal. mooy laam qamariya. al laam al mudgham laam gi ñu nëbb mooy laam shamsiya. wa shamsi wa duha xoolal jàngal jàngal suratul qamar ak suratul shams mm-hmm. iqtarabati saatu wan shaqa ah lu ci topp wan shaqal qamaru ndax da nga naan wan shaqa qamaru wala wan shaqal qamaru mu nga ndax xaaf gi ci qamar lekk na laam gi moo tax xamar gi firi weer kon laami weer laam googu mooy laami weer wala xorof yooyu ñooy xarafi weer yaa ngi dégg wa shamsi wala sax jarul sax ngay dem ci suratul xamar yemal ci suratu shamsi rek mm-hmm. ñaari laay yu njëkk yi wa shamsi wa duxaaha wal wal qamari ida talaaha ba nga ne wa shamsi shams dafay lekk laam jant dafay lekk laam wal qamari xaaf du lekk laam weer du lekk laam maanaam hmm. xamar ak weer baat boobu ah, maanaam bépp baat boo xam ne bépp leetar boo xam ne du lekk laam rek leetar xamari la wala laam boo xam ne duñ ko lekk laam xamari la bu la neexee nga tuddee laam bi xamari bu la tuddee nga tuddee leetar yi xamari bu neexee laam bi nga xam ne dañ koy lekk nag moom la ñuy ko moom la nga tuddee ko shamsi wala leetar ya koy lekk nga tuddee leen shamsiya hmm? maanaam fukki leetar ak yi nga xam ne dañuy duñ lekk laam dañuy feeñal laam ñooy alxuruf alqamariya ñooy luna letters yi hmm. ok ñoom lañ njëkk a jàng man lu tax sama ci ak tab ok mm danga de xuruufi izhaar yi nga xam ne dañuy feeñal laam muy fukki xaraf ak ñeent yim tudd fii ci ibri xajjaka waxaf aqiima fukki xaraf ak yi hamza ba ci haa bi ñoom ñooy alxuruuf alqamariya dañuy feeñal laam gi duñ ko lekk moo ñu tuddee alxuruuf alqamariya wala laam gi nga xam ne moom moo ànd ak ñoom moom la ñu tuddee al laam qamariya waaye xuruf en général ñoom la wax al xuruful qamariya fii nag moom laam gi la tuddee qamariya laam gi nga xam ne nag dañ koy idgham ci lettre yi yii nii laam goog la tuddee laam shamsiya wala lettre yi nga xam ne dañuy lekk laam ñoom la tuddee laam ash-shamsiya li koy leeral nag mooy baatu qamar du lekk laam xaafam baatu shams day lekk laam muy symbole shams mooy jant xamar di leer loolu rek tax ñu tuddee leen loolu mën naa tamit xamar mag xamar xam nga weer moom amut leer dafay feeñal leeru leeru jant ci niñ ko jàngee jant nag moom moo amuk leeruk boppam moo tax muy lekk leer yépp maanaam loolu beneen xam-xam la yàlla toujours buy tudd weer du tudd leeru weer wi dafay wax xamaran muniran ah. hmm. xamar munir la dafay leeral waaye jant nag moom dafa am leerug boppam hmm. Hmm. Ah, bu tuddee jant dana ko wax dana ko tuddee siraajan du noonu wa jaala shamsa naka la ko waxee wa jaala shamsa siraajan mhm. ah, siraajan tudd sax sam jan wa jaal naa siraajan wahaajan jant bi la hmm? dana tuddee jant siraajan Hmm? wala waxul jant siraajan maanaam siraaj mooy lan. siraajan mooy lan. Ah. waaw na sax lu gën a leer lool tabaaraka ladi jaala fi samay buruujan wa jaala fiha siraajan wa qamaran. muniiran qamar gis nga muniir rek. xanaa leeral jant bi nag mu tuddee ko làmp wa jaala fiha siraajan wa qamaran te suratu eh, al furqaan hmm, ku yéeme borom xam-xam yi nag nee lu tax parce que jant bi moom dafa yore leerug boppam weer wi nag leeru yore yorewut leerug boppam moo tax yàlla du ko tuddee làmp wala mu tuddee ko leer daf koy leer leeral leeral leeralkat bi hmm, am na sew-sew de ah, ah. moom ko jant bi ka shamsi mm-hmm. ka shamsi fi kabidi sama wa dawuha yaxsha albilaada mashariqan wa maghariba waaye nag bu ñuy wax ci mbindeef yee tax ñuy wax mm-hmm. waaye nag am na ku koy leeral mooy yàlla am na mm-hmm. sax ci barke ku muy leeree muy sama turandoo sallallahu alayhi wa sallam ah. waaw déedéet amu ko waaw ah, yonent amul takki ndeer sallallahu alayhi wa sallam xanaa ñu jàng bayti bi rek te moom ndax chapitre bi jeex mu ngi bëgg a guddi te dañ maa yeddoon wa adhiran wa adhiran laama ficlin mutlaqa fi naxwi qul naam wa qulna waltaqa hmm? lu muy firi observe the clarity of the lam of the verb in general for example in the words qulnaam qulna intaqa mm. mm-hmm. ah. xam lu tax mu wax intaqa iltaqa de la war a wax iltaqa en lu muy firi kan firi wala jarul firi leer na ah wa adhiranna na nga leeral laama fi'lin laamu verbe mutlaqan ba faw moo xam verbe bi amar la comme qul wala verbe bi maadi la comme qul naa dégg nga wala verbe bi mudaari la xam na loolu la bëggoon wax waaye mu ne wal waltaqa laamu verbe doo ko idgaam la bëgg a wax qul danga koy leeral qul naa da ngay laam bi iltaqa danga koy liir wala leerul ba léegi des na leer de pourtant li wax de lu leer la dafa leera leera leera la <laughs> maanaam laamu fi'l laam bu nekk ci verbe xam nga qul qul verbe la wala qul mooy firi waxal verbe impératif la n'est-ce xul mooy firi waxal hmm? waxal waxal verbe la wala du verbe verbe la waaw ah. yes verbe ah, mu ne nag laam bi nekk ci xul danga koy feeñal doo ko idgaam hmm. it euh, li topp ci moom chamsiya la wala ah, lu mel noonu la bëgg a wax waaye nañu yemagum foofu après après ñu ñëw dégg nga kul waxal naam waaw maanaam qul naam xam nga bi nga ne qul naam xam nga nuunu nuun nuunu naa nuun dafa bokkoon ci nuun du ci bokkuloon ci chamsiya yi bu doon bu doon al al naxli looy wax da ngay danga da ngay da ngay idxaam nga ne an naxli hmm. léegi nag mu ne nag baat bu dee lam bi nag lam ci verbe la nekk hmm. même su fekkee ne xaraf wa ca topp xarafu shamsi la doo ko idgaam doo wax qul maanaam qul naam qul naam wa antum daaxirun du jàngeen loolu ci alxuraan hmm. waxal naam waaw waxal waaw qul bi mooy waxal waaw xam nga nuun bi topp ci bi du tax bi mooy bu mooy hmm? waaw waaw xal pour question bal mooy bal li fi nekk bal dafay dabaatal bal bari na bal li fi nekk nangam nangam maanaam ngay wax bal kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun li fi nekk mooy seen xol yi dafa nangam dafa yàqu hmm? Hmm. donc li ma bëgg ma ma ko alquran ba mu jeex juróomi laam yu sukkoon ñoo ci am alquran ba mu jeex juróomi laam yu sukkoon ñoo ci am borom téere bi tudd na ci ñaar muy bu njëkk bi mooy lan laamu al laamu taarif taa taa bil ayn laamu taarif mooy laam bi nga xam ne dafay nekk ci al the definite al hmm, comme mooy laam yi mooy al bi ñu jàngoon al boobu laam boobu sukkoon su fekkee ne luuna leeta moo topp ci moom laam bi dafay feeñ su fekkee ne soola leeta moo topp ci moom laam bi du feeñ lunar lettres yi fourteen la comme niñ ko jàngee léegi solar letters yi fourteen lañ comme niñ leen jàngee léegi ñaareelu laam bi mooy laam boo xam ne laamu fi'l la tudd laam bu nekk ci verbe moo xam verbe bi mudaari' la present tense la wala maadi la past tens la wala amr la you know um, you can say hmm. future tense or you can say imperative fa amr mooy imperative verb moo xam làmbi ci début baat bi la nekk wala ci middle baat bi la nekk waaye du du mën a nekk sax ci début baat bi ndax hmm. baat du tàmbalee sukkoon ci arab waaye mu nekk ci middle bi wala mu nekk ci end bi comme qul walla qulna wala iltaqa laam boobu foo ko fekk dafay wat dafay feeñ waaw bu nekkee ci verbe dafay feeñ moo tax mu ne wa azhiranna laama fi'lin mutlaqan fi nahwi qul naam wa qul na waltaqa lu dul nag bu fekkee ne verbe bi dafa jeexee ci laam baat ba topp ci verbe bi tàmbalee ci raa mbaa mu tàmbalee ci mu tàmbalee ci laam ndax bu tàmbalee ci laam moog laam ñoo bokk lépp bu tàmbalee ci raaraa dafa jege laam comme qur rabbi zidni ilman hmm? wa hmm. ak yaj'al lakum loolu laa wax ne ñaar yooyu ñoo ñëw ci téere bi waaye ci alxuraan am na juróom ñetteel bi ma ne moo doon laamu lan laamul. laamul ism laamul ism the lam of a noun laamul ism the lam of a noun a lam that is in a noun lam bu nekk ci a noun tamit fooko ko fekk dafay feeñ kenn du ko lekk kenn du ko idgham izhar rek comme alsinatukum alwaanikum sultaan alfaafan hmm? laam bu nekk ci isim nag mooy dafay nekk ci isim ba pare bokk ca baat ba ndax laamu al buñ la wax nii ci kaw ci isim la nekk waaye bokkul ci baat bi dafa ñëw rek pour define the word xam nga alhamdu al bi bokku ci dafa ñëw pour define hamd du ci cosaan hmm? mën naa mën ngaa wax ne hamdan lillah yaa ngi dégg waaye sultaan lam bi nekk ci sultaan boo ko dindee rek baat bi baaxatut hmm, dégg nga al maliku the king mën nga bind dindi al bi ne maliki yawmi diin par exemple maliki naas baat bi dafay baax parce que al bi cosaan ci baat bi waaye alfaafan alsinatikum alwaanikum boo ko bind dindee rek baat bi yàqu Hmm? daat bi yàqu mooy ñetteelu laam bu ñëw ci alxuraan te am sukkoon juróomi laam ñu am ci alxuraan yu am sukkoon bi mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy laamul xarf laamu xaraf bu ñu waxee xaraf fii nag xarfu mabna taxul ñuy wax xarfu mabna maanaam ñaari xaraf ñoo am ci arab xarfu mabna ak xarfu maana xarfu mabna mooy arabic alphabet yi dañ leen di utiliser pour tabax baat to build the wall of a word or the building of a word xarfu maana nag mooy xaraf woo xam ne am na lu muy firi lu mel ni xarful jar lu jar mooy the prepositions for example min from ila to xaraf lañ koy tuddee ci arab même bu fekkee ne word la lu tax ñu koy tuddee xaraf tuddee wuñ ko word tuddee wuñ ko noun parce que a noun in an arab arabic mooy baat boo xam ne am na tur ci boppam am na astaghfirullah am na meaning ci boppam am na meaning ci boppam te lënkaloowut ak benn temps lënkaloowut ak benn jamono hmm? soo soo ne rahmatun lu muy firi rahma lu muy firi yërmande lay firi ndax yërmande dafa am temps bu mu lënkaloog it's a noun it has a meaning on itself yërmande baatu rahma soxlawul beneen baat pour am firi n'est-ce mm-hmm. tax it, it independently has a meaning in itself and does not connect with tense loolu mooy noun But a verb, verb is a word that has a meaning in itself, but connected with one of the three tenses past, present, or future. For example, boo ne qaala lan wax na qaala wax na das am na am na am na am na nu mu tuddati meaning in itself does it have does it have to do with past or present or future qaala hmm? no qaala qaala past yes parce que wax na ba noppi past tense yaqulu par exemple yaqulu he says yaqulu he says wala he say wala he saying mën na ko firi tamit present qul say waxal waxal ah waxal ban temps la am ban ban ban temps la amal affaire ah no waxal su ma ne thank you parce que su la sa commande la su ma ne la waxal nga wax bi ma naan la mm-hmm. waxal waxago kon li ma la wax yow sa wax comes mm-hmm. after sama wax waxal moo tax future la yaa ngi dégg waaye nag buñ ne xaraf maana mooy it's a word that has a meaning that is incomplete maanaam dafa soxla beneen baat pour dégg nga firi mat par exemple su ma ne from xam nga from fokk nga tuddu fi ma jógee pour ñu mën a xam lan pour wax ji mat from is a word that has a meaning but needs another word for the meaning to be what complete from the masjid to the house seetlu moo tax ñu koy tuddee xarfu maana am na maana may maana mi ma tut moom la ñuy tuddee xarfu maana mooy loolu nag bu ci alxuraan ñaar ñoo ci dikk mooy ban ak ban hal ak bal maanaam laam bu sukkoon ci alxuraan mu nekk ci xaraf ci hal ci hal la nekk nga xam ne question la hal wala bal hmm? yàlla buy wax bal dafa koy wax pour feddali walla pour réfuter li nga xam ne daf ko jiitu hal na ak bal hum fi shakk hmm? ak bal hum minha amun hmm? léegi nag laamu xaraf wax naa ko sànq maanaam laamu eh, isim wax naa ko sànq ne fum mu toll dañ koy feeñal bu dee laamu xaraf nag dañ koy feeñal moom tamit boo ne xal lu ci mënta topp xal bi dafay feeñ boo ne bal lu ci mënta topp laamu bal bi dafay feeñ niki laamu xal bi ba mu des bu ñu toppee ci ñaari baat bu ñu toppee ci ñaari bu bu leen ñaari lettre toppee laa bëgg a wax raa ak ak laam boo ne hal tarabbasuuna dafay feeñ bal hum dafay feeñ waaye bu dee uh, laam moo ci topp hal laka bal lamma dafay feeñ ndax dañoo tamathul bu dee raa bal rafaahu llahu ilayhi bal rafaahu llahu ilayhi bal rafaahu nga ne bal rafaahu dégg de dafay li ma kay leer na nañ dafay feeñ lu dul ñaar yi topp ci ñaar yi ñooy laam ak dama ne waaw su ma ne ñëpp dañuy dem ba mu des Fatou Kiné dafay dem dafay topp dafay toog jeex na tàkk <laughs> laam ok go dama ne loolu la loolu moom loolu la bal rafaahu waaye da naan bar rafaahu bal hal laka foog nga dégg laam parce que laam ak nëbbu laam da nga idgaam beneen laam rek seetlu nga hmm? hal laka maanaam laam njëkk bi hal laka da nga koo ci beneen lambi bal lamma bu dee raa bi nag bar rafaahu llahu ilay maanaam laam bële dafay nekk shadda ci beneen laam bi idgham idgham laam la ci laam hmm? idgham laam ci laam ndax tamaathul idgham raa ci laam ndax taqaarub waaye nag su fekkee ne da ngay jàng suratul mutaffifiina ci ñi nga xam ne dañuy waral sakt ci laam boobu xam nga ñun bu ñuy jàng kallaa barraana ala qulubihim mais am na ñoo xam ne bu ñuy jàng ñu mel ni asim Aasim dañuy wax kallaa bal dañuy taxaw soo wax raana ala qulubihim boobaa moom laam bi foofu dafay feeñ ndax dangay noppi moo tax sakta bi ngay bi ngay noppi moo tax laam bi dafay feeñ foofu mm-hmm. hmm? booy de bu fekkee ne da jàng jàngum Euh, bañ a feeñal danga nga naan kallaa barraana waaye ñiy feeñal nga xam ne ñiy ñiy noppi dañuy wax kallaa bal noppi tuuti ne raana ala qulubihim foofu nag exception la hmm? ñaata laam laa waxagum mu des mu des benn laam muy laamul amr laamul amr laamu impératif am na laam boo xam ne su duggee ci verbe dafay tax verbe ba nekk verbe impératif laam baa tax nag verbe dina nekk verbe impératif te laam taxut waaye laam dina tax verbe nekk verbe imperatif xam nga xul verbe impératif la waaye laam bi taxut laam bi taxul de mm. ngi dégg waaye laam nag laam buy nekk buy tax verbe nekk verbe impératif laam ba dafay dafay jiitu hmm? laam dafay hmm. jiitu léegi nag bu fekkee ne laam dafay jiitu dañ koy kasra su fekkee waaw daf ko jiitu dañuy sukkoon laam hmm? par exemple thumma li yaqdu thumma li yaqta léegi nag su fekkee waaw wala faa maanaam lettre atf dafa jiitu lambi bi boobaa dootuñu kasra lambi bi dañ koy sukkoon kom fal taqum taifa dégg nga de ak wal yuufu nuzurahum ak wal yattawafu hmm? fal yamdut bi sabab fal taqum fal na jóg fal taqum na taxaw taifatun min ma bi muy wax yonentu sallallahu alayhi wasallam su ngeen nekkee ci xare bëgg a julli fal taqum na kuréel na benn kuréel taxaw ak wal yuufu nañu matal nuzurahum laam gi moo tax mu wal yuufu su fi laam gi nekkoon yuufu na yuufu dañuy matal lay firi wal yuufu nañ matal wal yattawafu bil baytil atiq nañ ne nañ wër kaaba gi fal yamdud na tàllal bi sababin ila sama Hmm? dégg nga de so laam boobu laamu sukkoon laamu laamu laamu amr la laamu amr dañ koy feeñal laamu amr dañ koy feeñal hmm? kon juróomi laam yooyu ñoo am ci alxuraan yi nga xam ne dañu sukkoon borom téere bi ñaari la tudd yeneen ñaari yeneen ñett yi ñooy laamul amr ak laamul ism ak laamul xarf laamul amru dafay feeñ ba faw laamul ismu dafay feeñ ba faw laamul xarf dafay feeñ lu dul bu jiitoo ñaari leetar raa ak laam xaw ma leer na am déet nag incha allah ci classe bi di ñëw dana ci am yenn yu ci dellu siwaat ndax danañ jàng ay mutaqaarib ak mutamasil ak mutajanis mutamasil hada wa sallallahu ala maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maa ngi jégalu xaw naa xaabaabal tey alhamdulillah